ah xañul benn mbokkam Sadio Mané beddiwul benn mbokkam lépp ay mbokkam la ko teg teg ko ci ay loxom sàmba alaar yu bon yi buñ amee dara yóbbul ko ñeneen buñ amee dara war a def ay xew dem yóbbul ko ñeneen Sadio Mané xeebul mbokkam ba pare mbokkam yi ngeen di wax di leen den xas soxanu moo leen jàpp maire bi li mu wax ci ndaw si ngeen koy critiquer naan ibaadu la toogul nekkul ci réseau yi mais wax na dëgg réseau yi baaxul ñaata jigéen ñoo nekk ci réseau yi di simbi seen silib xoolal sénégalais yi lëf yi ma dugal yëpp data yi ma fi dugal yëpp di dëkku Sadio seen dëkk la yéen Dakar ak ñeneen ñi ah parce que caga moo leen jàpp ak caga ju bon di takk ay bin bin di yokk ay taat di wane ay ween ku la ci gën a paccal wala mu wane ay ween yaakaar na moom la ñuy takk deful dara xale bi da koo mérito am ku mel na Sadio Mané soxor ngeen soxor moo leen jàpp sëy bi yàlla na barkeel du ngeen waay yow bu leen ma merloo waaye da ngeen di gàtt yéen ngeen di